oui waaleykum euh, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. ñu naka xar mi baa mën na rek. Hmm? ah ñu ngi koy jéem <laughs> euh, euh, ñu fas yéene waxtaan yow rek ci par rapport ak li xew démb à l'Assemblée nationale gis nañ ne budget Sénégal bàyyeekoo na ci six mille dem ci sept mille milliards naka nga jàngatee loolu. waaw kooku évolution normale budget la. Euh, comme activité yi euh, économie dañuy gën a développé. Mhm. c'est tout à fait normal que les prévisions de recettes aussi gën a augmenté wu. Mhm. voilà boo xoolee sax at mi ngi génn mille euh, vingt deux bi bi mi ngi woon ci cinq mille cent cinquante milliards. Mhm. de àll bi ngi ñu ngi ci six mille donc quatre cent milliards. donc c'est tout à fait normal que at bi ñu aussi mu gën yokkaat budget lay doxee daal. Uh-huh. léegi lu jëm ci wàllum prévision jëm ci croissance économique bi nee nañ xaar nañ ko à deux chiffres maanaam douze virgule quatre pour cent euh, jàpp nga ak xët-xët yi fi am ak yàqu-yàqu yi war na mën a yegg foofa. Euh, waaw xam nga prévision la rek comme ni ko ci wax rek dafay am ci yoo xam ne jàpp nga ne yooyu bu doxee. Mhm. Euh, war nga war na mën a indi croissance bu bari. Mhm. voilà bu production agricole bi doxee bu dente ne production industrielle bi gën a avancé service yi aussi ñuy dox comme ni nga ni nga jàppale da nga ko a am ay recette ak ñoom li ñuy espérer su boobaa na mhm. donc euh, prévision nag ku nekk ak ci ci ci li nga sukkandiku pour def si jàngat rek bu dee banque mondiale par exemple bi dafay jàngatam moom jàpp na dañ dem ba neuf virgule neuf pour cent presque dix pour cent mhm. voilà donc boo xoolee réew yu bëri noonu la organisme bu nekk def ay ay ay provision donc banque mondiale day def FMI def euh, euh, gouvernement bi def structure statistique bi indépendant indépendant euh, collectif dana def bosom ak OCDE ku ne dana def mais leen leen utile du bëri mais boo jàngate ba ci wér nga gis ne peut être kii fii la insisté kale insisté fale mais en réalité bu demee ba ca fin bi moom da nga gis ne souvent structure bi nga xam ne moom moo nekk ci réew mi tey li may statistique a jege réalité Mhm. ndax ndax réew moo xam ne économie se c'est une économie extravertie moom <laughs> loolu dina xaw a yomb. Euh, wa parce que loolu loolu lu ci dara. Mhm. que mu àgg douze pour cent dix pour cent ou un peu moyen loolu ci problème kay mooy lan la ñu war def croissance ñu ñuy espérer ñu bëri ko jëriñoo. Mhm. waaw pour cela nag gouvernement bi moyen yu am. dafay fexe rek gën orienté secteur yi nga xamante bi vraiment euh, day encourager davantage day favoriser lu croissance inclusive mhm. lu mel ni càmm euh, mbay mi voilà naka kii bref lépp li nga xam ne daal Sénégal yi bari ñu ci yëngatu te luñ ci waay am rek lu mu néew néew feeñ ci ci de la ménagère maanaam dana neexal kër gi mhm. effectivement yaa ngi koy wax sax lu jëm ci croissance économique boobee parce que askan wi ñu bëree bëri ñoom boo ko laajee sax waaw bon parce que aussi ni ñu communiqué léegi ki nga xamante ne bii nag moom mbiru musique ak atias ñoo ko intéressé boo doon communiqué fii ba suba aussi du du du du ci changé dara. Mhm. parce que loolu moo war a gën a góorgóorlu di di di wuti information eh, parce que information yi disponible. Mhm. disponible na da ngay gis mu nekk ñun professeur université yeeg ñeneen ak ñeneen léeg-léeg nga def benn conférence ay def ci am solo. Euh, si yenn si dugal ko mën mën mën mën na mën na def six mois doo gis sax mu am mille vues à côté nga gis koo xamante bi waxee waxee reetaan rek lay wax man la tout ce qui deux jours trois donc ku ñooñu xëy na loolu a intéressé mais ñi mu intéressé moom koy xam. ok ok waaw ah. jëm ci wàllum recette fiscale yi nee nañ loolu dina yokk ci vingt trois pour cent naka nga ñu ko mën a tënkalee rek. waaw xam nga recette fiscale moom. Mhm. Euh, ñaari côté mooy tax muy yokk soit taux de recouvrement bi gën a élevé soit nga élargir assiette fiscale bi. Mhm. voilà léegi aussi ñi nga xamante ne dañuy fay bu seen mbir gën a dox la ñuy wax day gën a bëri. Mhm. waaw yëpp encore une fois projection la rek parce que tant accès goo ci mën a boo xam ne ne loo yaakaar na rek. ok ci wàllum wàllum bor yi parce que Sénégal <laughs> gis nañ ne il a atteint le seuil ci par rapport a wàllum bor yeeg yooyu dina dina yomb. Euh, bu dee bëri kay dépasse na service parce que c'est c'est UEMOA bi soixante dix pour cent ñu ngi ci soixante quinze pour cent donc par rapport au produit intérieur brut national PIB voilà donc euh, mais danga ngay xam ne boo nekk ci situation de crise souvent li ëpp solo mooy nan nga def ba régler problème bi pour gën ci crise bi ñëwaat ci vie bu normal mhm. lépp loo def ci effort bu doyul pour pour régler problème boobu boo ci jógee nag après nga nekkaat élève bu discipliné jéem a respecté encore wax. mais bul bul lay fal fal lu problème bi. Mhm. donc yi jóge fi. Mhm. soo paree nag voilà nga jéem a régler pour jéem a remplir encore ce qu'on appelle les critères de convergence. Euh, état sax mu jëloon ay dogal maanaam wàññi dundinu yenn ci ay jëwrin. loolu jàpp nga ne ab euh, dogal bu baax la pour askan mi gën ko sentir ak yooyu. waaw yooyu borom volonté la rek day day wane ne rek vraiment euh, bu sañoon euh, mbir mi gën a oyof ci population bi. Mhm. mais nekkul mesure yoo xamante bi efficace na. voilà parce que moom bu leen tant que yaa ngi koy yaa ngi koy jël bi baax daanaka da ngay gis ne kon njariñ bi des na. Mhm. waaw mais il faut toujours nga encourager mais noonu. waaye dafa am foo xamante fa fële ëpp gën a tee baax. mooy nga fexe ba léegi loolu ñu jëfandikoo ñu koy bàyyi ci réew mi ba mu doy doy sëkk ak barke su boobaa wax dëgg fa yàlla lu nit am lekk ba suur lu am na lu man mhm. waaw foofu daal mooy fii fii mbir mu nar na a gën a amee solo booy xool xoolal par exemple so soble si rek mhm. il y a semaines de cela saako bi mënoon nga ko amee pour moins de euh, huit mille francs léegi dem na ba huit mille di waxoon sax vingt mille léegi dem àgg vingt deux mille et voilà ndax événement jub si na alors que normalement prix bi moom stable maanaam na nga ko jëndee woon mois bu passé wala il y a deux semaines tey aussi fa a nekk parce que lu jógee mooy de huit mille francs dem ba dix huit mille ko ci mooy de deux semaines mu augmente plus de dix mille simplement tabaski leen leen jëm soxla soble soble dañu soxla pomme de terre ñi yokk ko nu xel loolu xel moo ko xel moo ko nangu waral rek mooy dañ jàpp ne xëy mais tant que bu quantité bi doy na sëkk ñi war a contrôler amul droit yokk waxuma nag ngay double wala triple prix xel dañu ko ci réew mu organisé. Mhm. Mhm. léegi lu jëm ci wàllum euh, l'inflation bi loolu nag euh, nee nañ war na toll ci deux virgule huit euh, pour cent entre deux mille vingt quatre ak deux mille vingt six au delà de peut-être seul trois pour cent fixé dans le cadre de la surveillance multilatérale avec mois waaw yooyu yëpp comme ni ñu ko waxee rek. Mhm. xam nga ñun science sociale. Euh, souvent dañuy def suñu projection mais tant que accès wu fa jàngat bi jàngat bi lay des mais nag mënoo toog rek croiser bras ba accès ci mm-hmm. parce que boo xoolee daa ñu doon def daa jàngat yëpp daa amul kenn ko xamante yaakaaroon nga benn yoon ne guerre daan daan daan def guerre guerre bi ñëwee gis na kon mbirum pétrole bi xaw naa jafe mbir yi gën yokk euh, mbir yi bële bi yokk logistique bi yokk donc finalement ki jënd ji lu cher bu ñëwee forcément day jaay lu cher ndax mënoo jënd voilà il faut au moins nga couvrir sa sa sa frais yëpp jëm cee teg sa marge. voilà donc leneen li ñu aussi ñun xamuñ ko mais jàpp nañu bu dente ne boo nekk dans les conditions normales maanaam bu dente ne kenn jotul sa morom dara amul réellement bu majeur amul mhm. effectivement war nañu mën a àgg bu ok mais mais gis nañ ne manifestation amee wala ñu convoqué Ousmane Sonko dañuy faral di gis que secteur informel dafay am gàllankoor loolu jàppaloo ne war a doon waaw xam nga secteur informel bi. loolu mooy malheur bi ñi ñi mu regroupé dafa bëri trop bi dafa mhm. parce que niveau produit bi moo également. waaw ñi fa nga xamante ni vraiment a surtout ci ci secteur tertiaire. Mhm. ci mbirum service ak maanaam mbirum téléphone beeg mbirum bàcceeg yooyu mu ëpp daanaka li muy joxe. Mhm. voilà léegi nag informel bi moom euh, c' est normal que góorgóor fa nekk ñu ngi war a jàppale ñu war a gën a organiser la mais encore une fois moom ak ak ak ak secteur primaire bi ñoo yem seen niveau pour ñu dafa faible bien que li mu concentré ci ci liggéey kër bëri na trop trop trop mais li ñu contribué dafa faible. Hmm. ok Mor fekkee am nga laaj wala Mamari. voilà donc merci beaucoup monsieur Gassama ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay jërëjëf. Euh, ça un grand plaisir. jërëjëf merci beaucoup. ok jërëjëf merci en ñu ngi koy gërëm monsieur Gassama nekk ab jàngalekat.